kontaan ngeen sha allah wala ma ñew ci live bi nak xamna kontan kontaan ngeen bëgg ngeen ma ñew nak ci li nga xamne mo waral ma taal live bi bëgg waxtaan ak mbokk sénégalais ginnaw bu ma leen fu may commencé moy ngeen dem jëli carte électeur yi benen bi moy ñu focus xamne combat bi dañ koy gagner insha allah. damay commencé live bi nak live bi danaka lepp alerte la ma ngi commencé si wa kër Basirou jomay fay moy këru bopam di kër famewam tay journaliste yëpp ñu ngi daw uti ji keur jomay fay ñu def attention bu baax a baax ci journalist yi daw ñew ci ñom ndax journalist yoy nonu ñu upp ci ñom lu baax taxu leena jox jomay fay porté won na fi xex bu neng leer di soutenir baykat yi suñu mbokk baykat yi borom milliard bobu nga xamne tay domam mo kompolo ak Macky ak papam ñukoy wax babakar Ngom xaw ma Babacar ngoom Satima la tudd xaw ma moo jur xale bu jigéen boobu di laaj réew mi ci tappale Anta Ngom ñu dem di nangu suufu Ndingler keroog journaliste yi yëpp dañoo boycotté Bassirou Diomaye Faye gisoo leen benn journaliste tey tey bu tey yéen yéen famille Diomaye li ngeen war a def ngeen delloo arrière bi li angale naan background check dellu ginnaaw ngeen xool Diomaye Faye ba muy xeex intérêt baykat yi intérêt yéen seen gox seen commune seen dëkk ndax journaliste yooyu ñëwoon nañ di jàllale message la Diomaye doon xeex. Tay dégg Ousmane Sonko indi na Jomaay teg ko ne ko yow doxalal ñom ñep ñu daw ñew pour jabuliser len xam nga lu ñu ut puri lu lu de fa pour lu bax pour jomay fa pour lu pour famille jomay famille deretam lay wax dañ fa ñew pour yak jomay dañ pour le président Ousmane Sonko nak, lool mom ñun nañ parce que ñun plateforme yeen am ngeen fu yéen a moom plateforme yu bëri yoo xamante ni yéen a ko moom kon am ngeen fu ngeen waxee kon moytu leen yenn journalistes yi Pape Alé Niang bu leen fàtte Pape Alé bu leen fàtte Walfadjri bu fa Walf ñëwee jël leen bu fa kii di Pape Alé ñëwee jël leen parce que bu mu méttee ñooñu ngeen gisoon bi mu méttee ñun ñooñu leen gisoon ak suñuy plateforme mais ay journalistes yoo xamante ni démb ba léegi ba jomaay sosee doon jomaay ba léegi mosu ñoo dëgg foofu seen tànk tey bu ñu fa ñëwee defar taxu leen a jóg attention. si communication bi élection lañu jëm ta Sénégal réew mu naqaree waxee la bo juumee duñ la bal kon bàyyi leen xel ci lool après na ma soga a ñëw nag si tappale politique yi nga xamné moy tapalé opposition bi yi nga xamante ni tey ñoom nee nañ yaay ñom ay opposant lañ mané ne leen déedéet sénégalais ubi ubbi leen seen i Ousmane Sonko yéna xel yi ñooñu duñu ay opposant ay infiltré lañ Macky Sall noonu la fi non lay def day jël kenn waxna naa leen ko day jël kenn ne ko demal bokk si opposition bi di ma saaga di ma oppose waaye doo ma sa dem kaso bu ko jaree sax mu dugal la kaso génne war la yor la yor sa kër jox la lii si alal Macky noonu lay opposé noonu la ñuy infiltrer 2019 bu ñu yeewul dootuñu yeewu ku leen waxoon ne euh, candidat yooyu noonu bu 2019 candidat yëpp dem nañ fekki Macky Sall après bi mu bi mu tegee ay tappalem ba jëlaat réew mi kii di Idrissa Seck kii di sant Sall te mu doonoon candidat wu koku da trahir wa PUR trahir wa Senegal. bu ngeen yewul nak dotu len yew gis nga fiñu jëm ni tanef la go xamanteni ni ñoo si am responsabilité du mbiru passif du mbiru Ousmane Sonko mbiru sénégalais yëpp la ñun li ñuy dund suñu mbir la. motax da ngeen wara jëli carte électeur yi da ngeen wara focus da ngeen wara gis sax ku jëli ni da ngay sonal nit ci dama jëli sa carte électeur ba la ya bëri wax wala ya sof gis ngeen ñi ni ni ni Macky Sall Macky bu yag jox len manam maanaam mu ne volume ah wax nga dëgg Macky moo leen préparé bu yàgg Macky moo leen préparé bu yàgg ne leen dem leen uti parrainage dem leen wàcc ci bi ba si Anta baaba Ngom gis ngeen ko dañ ne ko demal wàcc ci terrain bi ñu sànni la ay grenade lacrymogène nga yuuxu comme ça Macky moo lay moo lay moo lay moo lay duma moo lay toroxal fekk demeewul noonu ñoom ñëpp Macky Sall lañ ñaata ñi si opposition bi ñooñu Macky Sall woo 18 heures loolu lu ñu programme la calendrier bi lañuy ñuy détour la ñuy la ñuy déroulé seen calendrier programme tappale boobu ñu dem ñu ne dugal nañ parrainage amuñu parrainage gis nga parrainage ñoom bu neexoon mag Macky ñoom ñëpp dañuy jàll mais Macky moo mooy doxee noonu foofu mu am ñu mu écarté te waa këram lañ ñëpp moo leen moo leen ñëpp waa këram lañ ñi mu écarté noonu ak ñi nga xamante ni ñoom la bàyyi. parrainage bi gisoo leen kenn kuy ut parrainage ku dul waa Pastef si biir réew mi ak benn benn yeneen candidat si biir loolu li ma leen di leen baax si biir loolu dañoo dégg ngeen fi orange. orange lu yonam ci suñuy parrainage sonatel lu yonam parenas. suñuy parrainage aéroport bu policiers yeeg gendarme yi si kaw tali sax amna ño xamni sax dañ doon jël outal ut ut ut jël jël information carte seni information diko diko diko jox état bi pour pour pour parrainage non yow la sa téléphone am problème yow mi wax volume parce que ñi ñu may dégg légui nak ak lool non yépp ñu jël parrainage bi parrainé ñoñu maki molen leen déglu leen ma fi bu baax li may wax mu ne ñii dinaa leen écarter loolu yëpp conseil con euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo doon jàlle kandidaay déggoo leen fenn foo xamante ni be foo xam ne àtte nañ si yoon si li doon def lépp dañoo def lu leen neex ba écarter nañ ñeneen Ousmane sonk candidat yooyu noonu tey ñoom ñooy dem pour toxal élection bi ñun tuxaluñu ay élection la ñuy waxtaanee ji ak Macky avant gis ngeen yi par dañuy jéggi par pas la ñuy def ñu ne lan. ñu ne opposition ñom ay opposant ta palé ay opposition ay doomi maké lañ manam wa APR ñom ñoo ñom ñep APR lañ bok ay bukki sango deru bay lañ première étape djégo bi ñëk def ñu ne ñu ne Ousmane Sonko ñu ne ñoom bind nañ lettre lettre bobu nonu pour jox ko Macky Sall pour képp ko xamné da la écarter mu bayila nga bok ci élection yi Macky Sall mënatul dogal dara Sénégal pare na liñ seqoon ak moom ay fan mo ci dess Ousmane Sonko ne lañ bokuma ci Ousmane Sonko ne leen man bokuma ci binuma lettre ñaanuma ñek munuma nek di xex man ak sama ay militant ba yegg si fii di ñaan ñek Macky Sall awmu ma lu may ñaan Macky Sall Macky Sall jidotul yoratul dara bay maye. amna candidat dem len ngeen top ko muy Bassirou Diomaye Faye amna ay candidat la wax pour mu leer ñoom ñu genn ci nan non yeguñu ko Sonko ben élément ni ni <laughs> ñu indiwaat tey ñu ne Macky Sall moo leen woo 18h Macky Sall woowu leen de seen calendrier la ñuy ba léegi ñu war a dem wuyu ji ñoom ñoom ñooy wuyu ji seen baay ñooy wuyu ji seen patron ñoom ñooy wuyu ki leen di doxloo lii ñun comprendre nañ loolu yëpp maa ngi jégalu nag Amadou Ba bu Pastef suñu Amadou Ba gis naa benn texte bu mu bind mu ne nañu bàyyi di attaqué yenn opposants yi wala yeneen yi parce que dañoo soxla carte yi bu ñu demee deuxième di ko wax ñu koy gisee suñu parti ñun di ko di ko di ko wax carrément noonu lañ ko bu ñu ko gisee feneen noonu lañ koy dénoncé Sénégal nekkatul dëkk boo xam ne da ngay day am kenn ku naan la man maa moom parti bi maa moom nit ñi. gis nga Idrissa Seck ba mu demee moom kenn dem mbooloo ma dañoo daw fekki Pastef ndax Pastef moo nekk si Sénégal fii ku fi fii nit ñi topp ñu kenn benn leader moomul nit ñi. nit ñi dëgg la ñu topp nit ñi procès la ñu topp gis nga loolu bala bala maanaam jàngat bi dafa yomb xoolal ñun ñi bokk Pastef rek. képp ku si def benn erreur wala ngay def tappale bañ xam ko si yow rek patriote yi ak lu ñu la bëgg-bëgg dañ lay bàyyi. sénégalais yi bëgg nañ lu baax dañoo gisutoon ku baax ñu dem ba gis lu baax gis ku baax muy la président Ousmane Sonko projet bi mooy lu baax ñu topp ko. mais nag si biir loolu buñ gisee ñoo xam ne moomuñu Sénégal jàpp na Sénégal dañ koy donnoo donnantoo jàpp naa la ki doon ki falu moo gën ki faluwut te yow ki falu balaa moo falu dafa ñëw si yow di la laaj di saraxu di def lu nekk pour nga fal ko. kooku noonu yow yaa ko seefe yaa ko buure yaay njaati gém ñun si dëkk yu ñu nekk démocratie boobu moo fiy daw moom lañu bëgg mu daw senegal li ñëpp bokk ñëpp jot si la Ousmane Sonko wax. tey ana baykat yi ana sàmmkat yi ana nappkat yi ana étudiants yi ñu tëj université bi ubbi làmb ji ubbi fomi tey di gisoo leen benn politicien campagne yaa ngi ñëw du ngeen gis benn politicien bu ñëw si yéen baykat yi wala sàmmkat yi wala feneen ñëw naan leen ñëw di leen jox xaalis di jox alal. di leen jox alal pour ay mitin wala di leen jox alal pour lenn parce que yoruñu ko bu ñu demee ba jiite réew mi ñëw di leen jox ay t-shirt di leen jox ay 2000 di leen jox ay 3000 xiifal leen sonal leen maanaam loolu noonu ñu leen war a jox yéen moom la ñuy jël këccët ko sàcc ko fa mu nekk di leen ko jox loolu Ousmane ko wax ne def naa fa 15 ans musuma faa jël benn dërëm moom ak Jomaay Fay lépp lu mu mas a lépp lu mu a bañ rek moo Jomaay ñooy bokk ànd ñoom ñaar bañ ko bu ko neexoon mu ne dem leen si Birame Souleye Diop bu ko neexul mu dem len ci Abbas Fall bu ko neexul mu tek El malik, lu mu tan jomay pourtant ñi am nañ liberté ñu ci biti mu tanal ñu ko xamne mu ngi ci kasso bi amul liberté mais xamna ne ñun wax deug fa yalla japp na ne ñun yewu nañ ba discours dootuñu ken dotu ñu nax mu ne non bu len neex sa bu len campagne te di len nelaw ma gagné élection yi. bu mu sax bu ko andi won dañ koy wote bant sax bu ko teg parce que affaire bi projet la programme la programme bobu non gis nga ni Amérique di def politique boobu la Sonko indi Sénégal mooy même président Ousmane Sonko deful boppam sax candidat parti bi ñoo voté tànn ko ñu ëpp si parti bi doy ko ne ko yow la. programme boobu noonu noonu nga xam ne ba ko parti bi ne ko yow la keneen bu bu ñëwoon sax Ousmane Sonko mu ne candidat la kooku bu ñëwee programme boobu lay continuer mooy projet bi du du yow da ngay ñëw indi sa programme naan sama programme sama projet. projet Pastef projet Pastef la mooy projet Sénégal bii génne Sénégal ëllëg ñëpp xam loolu nag yéen kat yi commencé ngeen daw dem ci sen presse yono Amadou Ba jël alal lu bari defal ko ci presse bi loolu moom yàgg na de Amadou Ba mom candidat presse bi la ñen ci ñom dem def alal ju bari ñu nan wa deuxième tour di ñu duggal ci ay ay ay débat wu deuxième tour ay débat wu Bassirou Diomaye Faye bu génné campagne yeeg buñ ko wut ay débat wu waa ak ay débat wu programme Ousmane Sonko Ousmane Sonko du Diomaye yooyu noonu ngeen ñen def sen ki yi noonu comprendre nañ lepp Sénégal dëkk bu touti la presse bi dañuy wax nit ñi dañuy wax dañuy netali te te te te fii lu fi waay def lu waay di nëbbu rek daa yàggut bu dee jubut mu feeñ. kon seen yooyu naan ñu dañuy tëbëri dañuy dugal si ay débat wu deuxième tour ak troisième tour ak quatrième tour premier tour la ñu duma def ngeen seeni sondage chaque jour Pape Alé Niang wax nañu ko chaque jour bu ngeen xëyee yéen a ngi defi sondage chaque jour ba fu may wax ak yéen xam ngeen ne Diomaye Faye day jël réew muy Pastef léegi lii ñëw ma wan leen ne candidat yi ay candidat tappale lañ laay tappale lañu laay ñëw jox leen preuve bi ngeen xool candidat yi ñoom ñëpp élément Macky lañ déglu saay-saay bi. kii di wax ni Boun Abdallah Dionne la mu ne Macky sàll patron am conférence de bi mu ngi ko def démb mu ne. Macky Sall sama patron Thierno Lo ne ko sa patron woon mu ne ko patron pour toujours parce que bu Abdallah Dionne candidat wu Macky Sall la Aly Ngouille Ndiaye candidat wu Macky Sall la ñoom ñëpp candidat wu Macky Sall la ñii ñii ñëpp di di wax di tëb di daal yëpp mun na am nag ay dof yu si topp yoo xam ne ñoom xamuñ sax lu xew te ñooñu ay candidat lañ waaye daal ñu ëpp si ñoom ay candidat Macky Sall lañ bun Abdallah Dionne moo wax lii dégluwaat leen ko bu dee leeru. dégg ngeen ko mu ne patron mu ne Macky Sall sama patron patron euh, euh, Thierno Lo ne ko patron woon mu ne ko patron pour toujours pat sama patron patron pour toujours ñoom ñëpp ay candidat Macky lañ foofu na dama fay taxaw wax fa lu am solo ngeen déglu ma Sénégalais yi Boun Abdallah Dionne mii heure bu élection amee élection yu am importance Sénégal moom la Macky Sall di génne moo ñëwoon nañu juróomi candidat la ñu am moo ñëwoon nañu cinquante huit pour cent Boun Abdallah Dionne moom moom la def ko candidat jiital ko ne ko demal nga def bon boobu noonu. demal nga def liggéey bu bon boobu bu ñaaw boobu noonu ñoom ñëpp ay candidat Macky Sall lañu képp koo xam ne nag ba si Aly Ngouille Ndiaye candidat Macky Sall Aly non Sénégal man Sénégal léegi damay toog mu yàgg mais nag comme que dara xewagul dañuy alerté rek Aly Ngouille Ndiaye moo nekkoon ministre de l'intérieur bi nga xamante ni tax tey ba am problème mu carte électeur si Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moom moo nekk ministre de l'intérieur boo xam ne Covid 19 bi nga xam ne bi ñu si génnee yàggut moo jàpp Sénégalais yi leen duma. ku takkul masque ñu fayeeku la douze mille ba pare duma la ba pare di la tëddaloo heure boo xam ne heure boobu du jot joxuñ leen ngeen lekk joxuñ leen ngeen naan kooku mooy Aly Ngouille Ndiaye candidat boobu doon leen toroxal moo kompaloo ak Macky Sall ne moom Macky dàq na ko bokkut ak moom nu ñuy doxee doon lay campagne laaji parrainage dem na si ba tey de dem na uti parrainage ñëw ñu ne ko écarté nañ la ñu indiwaat ko ne ko demal moom mottali mu ñëw ñu ne dugal na loolu yëpp si calendrier bi la sama gars yi ubbi leen seen xel moomu fan moom moo nekkoon jamono bi ñuy jël imam Alioune Badara Ndao di ko dugal si kaso bi di ko pamti pamte di ko baagante ay dëkk. 52 milliards merci beaucoup si carte électeur loolu lu ñu war a leeral la Aly Ngouille Ndiaye moomu noonu moo nekk bi ñuy jàpp imam Alioune Badara Ndao ko pamti pamtee di ko duma di ko toroxal di ko posane di ko def lu nekk ba mu faatu Aly Ngouille Ndiaye moo nekkoon ministre de l' intérieur. ñu naan ko defa muy defloo di bàyyiloo Aly Ngouille Ndiaye moo jàppoon moom Mamadou Diop Decroix si jamonoy opposition bi 2019 ñuy def élection mu jàpp ko duma ko. mom ak gi Marius Sagna ñu jàpp Mamadou Diop Decroix yekati ko ba tanki di laal suuf ko nga xamanteni xex bu ne xexal nako senegal ñu diko sanni ci si auto police bi ali nguy ndjay mi tay mom la won ali nguy ndjay mi mo bare won fañ non defare parrainage bi jël police ak gendarmerie nek ku fi jox loxo ñu yóbbu la kaso. ye Sénégal yeewu leen ñooñu la Macky Sall def candidat yen naka len yen naka ngeen di topé ku len di toroxal xana du ngeen wotel nak dem di wotel ku len toroxal demb xam ngeen li anglais di wax background check gis nga affaire affaire yi doo fàtte da ngay delu ginaaw nga xol sama dembu gis nga ni sax buy góorgóorlu day ko dembu sa dembu amna lo xamanteni bu ko melé sa kanam da nga moy defar sa kanam yow. dem len ngeen jël carte électeur yi te wotel candidat bu baax moy basirou jomay fay di xaar parti bi na mu genn photo bi nga xamné mom lañuy campagne ñu tass ko fep ñepp xamé maire yeeg paa yi ñëpp kan moy basirou jomay fay gis ngeen ko mu ngi ni borom photo bi moy basirou jomay fay ma ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy candidat yi ba tey Sénégal ñu ubbi suñuy bopp li ñu dund ci ginnaaw maa ngi ci background check bi ba léegi ci laay ñëwaat mooy dellu ginnaaw xool li ci suñu ginnaaw bu leen fàtte ne Sidi Lamine Niass dafa contrôle état dañoo soxla ñu leeral ak deewam rakkam wala magam Ahmed Khalifa Niass moo ne Sidi Lamine danyon dañ ko rey dañoo soxla 66 bu ëllëgee 2024 bi ndax Sidi dafa nekkoon ko amaloon réew mi njëriñ. kii nga xamante ni moom mooy baay Samba jàlloo dafa jàkkaarloo woon ak état si Covid bi wax lépp loo xamante ni tey ñu ngi koy def wax li suñ ginnaaw kooku faatoom dañoo soxla ñu def ay enquête ëllëg. kii nga xamante ni moom mooy imam Alioune Badara Ndao dañ ko jël yóbbu ko kaso mu faatu mu mu mu ñëw nettali adduna yëpp xool niñ ko reyee dañoo soxla loolu leer ëllëg. li nga xamante ni moom mooy gerte gi ak dugub ak baykat yi li nga xam ñu ngi ko daan dund ak prix bi ñu war a jëndee gerte gi bay naan ba ba am fu ñu dugal xaalis yooyu noonu mu am sàcc gu fa nekk ak université yi nga xamante ni Macky Sall moo ko waxal boppam sa Sandiara mu ne université wala lycée yoo xamante du pare ana xaalis bi gars yi fu mu toll nii kenn waxatu ci loolu loolu dañoo soxla mu leer 2024 bii dañoo soxla 2024 bii 94 milliards yu Mamour ya dañoo soxla si sis ñëw ko si table ñu atte ko ndax Macky Sall moo effacé loolu suñu alal la ndax hôpital yi dañoo feebar dañ koo soxla sama gaay dañoo soxla suñ six mille milliards yu Aliou Sall yi bu leen ko fàtte yëngaloon na fi dëkk bi bu ñu fàtte loolu dañ ko war a indiwaat teg ko ci table bi deux mille vingt quatre ñu ko sama gars yi dama leen di fàttali ne leen Cheikh Oumar Anne Ñebbe dañoo war a ñëw leeral alal jooju nga xam ne sa ba lañ ne lañ ko détourné teg ko ci table bi Sénégal yëpp gis. sama gars maa ngi ñëw de dañoo war a indi deux mille vingt quatre bii ñu leeralal ñu autoroute. ak point yi yi Macky Sall di bako tay ci biir Sénégal ñaku doon liggéey alal ju nekk ñu tégal ñu facture ne fi ngeen ko fi fi lañ duggal xaaliss bi ndax Macky Sall mas sa nangu loolu. dañoo soxla 2024 Sénégal émergent bu muy wax ñu léral ñu alal ji nañ ko lébé ak niñ ko indé ci dëkk bi ak naka lañ ko naka lañ tassé xaaliss bi ci biir dëkk bi ba dëkk bi am problème mu ak lek ak naan ko gis kanam gaangi tak tàkk dañoo soxla lolu ki mu né 36 milliards dee bind programme dee leen commentaire lepp luy problème lo xamanteni Sénégal ñu ko wara léral 2024 ndax musuñoo nangu ñu leeral ko amul benn réew moy dem ci aduna président bi dem génn jëli xaaliss ñew andi ko ci réew mi té deful conférence de presse wax li la ma France jox fi la koy duggal mu paré wat mu né la li la ngeen ma joxone fi lañ ko duggal dama né dañoo soxla ay léral ci 45 milliards yi nga xam 2024 bi la leen wax dé loolu yëpp da ngeen jëli seen carte électeur nag ngeen wooteel Jomaay Fay mooy Pastef dañoo soxla ci 2024 bii 45 milliards yi ñu jëli woon ñëw dugal ko ci biir pale bi benn ku bokkoon APR ñu koy wax Moussa jóob génn ne arme ay arme yooyu la ñu jël ñu won ñu ay pick yoo xam ne jël ay nervi ñu dugg ci biir Sénégal lu Sénégal Sénégal mës a gis ñuy rey ay doomi Sénégal di dóor ay bal comme ay film yéen ñëpp ngeen di si teg seen bët dama ne bu ñu fàtte démb loolu yëpp dañoo soxla mu leer li koy leeral mooy jël leen seen i carte électeur te ngeen taxaw temm don ay mandataire kenn ku nek ci bureau de vote bi nga ne dama ne dañoo soxla ki di dossier bi di dossier Adji sar lepp lu ci nit mas def ak Mamour Diallo ak ñom euh, ki nga xamanteni mom moy ki sante sek tamuy def mandat dépôt yi fàtte naa turam nga xamanteni dañ na dañ koy wo téléphone ne ko defal xalé yoy di ñew mandat dépôt dañu soxla leral si yeen coup fil la doon jot pour di jël ay doomu jàmbur yu deful dara def len mandat dépôt ba fumay waxe yeen ni ñoo ñu ci si bi duñ si yam ñu xëy dem gis juge na leen defoo leen dara neuf mois kenn si Diop Taïf te mën naa liir ñu lim ñu bari ñu xëy na ko bàyyi nañ la waaye defoo dara yooyu yëpp réew mu am Sénégal kese la am. dama ne dañoo soxla ay leeral ngor Antoine Diome jël ay xale jël ay nervi jox leen ay fetal ñuy rey ay doomi ngor ay doomi yoof ba ngor lébu yëpp yëngatu. dañoo soxla yéen waa Ngor dañoo soxla ngeen xam ku rey seen doom jooj Antoine Diome taxaw carrément def conférence de presse def déclaration ne noo xale bi dafa daw dugg si biir géej gi daal di faatu foofu noonu mu doon xale bi ñu génne ko fekk ay bal lañ leen dóor ba ñu dee Antoine ñàkk Diome moo def loolu. Sénégal dañoo soxla loolu ay leeral dañoo soxla Prodac Mame Mbaye ñaa li waral dossier bi ak Ousmane Sonko ñu dem. fexe ba leeral ko ëllëg le président Ousmane Sonko dañoo soxla lépp lu ko si si si teg ëllëg 2024 ñu dem wooteel Bassirou Diomaye Faye mu ñëw organiser mu ñëw teg si sis ñu attewaat procès yëpp atte boo xamante ni day neutre lu si Ousmane Sonko def Sénégalais yëpp xam ne lii Ousmane Sonko ko def lu mu si defut ñu xam ne lii yëpp ay tappale la woon ñu jël ñi nga xamante ñoo def complot yóbbu leen kaso bu dee Sonko def ñu def ko comme li nga xam moom moom lay woote bu deful mu leer mais lii ñu wone lépp na Sonko deful dara loolu la ñu soxla 2024 bii moo tax dem leen ngeen jëli seeni carte électeur dañoo soxla se police bi taxaw parcelle yor fetal natt booy bi ba booy bi rango drapeau Sénégal nga xam ne Sénégal nee nañ la boo yore drapeau Sénégal kenn warula la dóor bal dañoo soxla ay leeral si sénégalais boobu noonu police bi yor fetal tiim ko natt ko dóor ko bal mu daanu ñu koy jooy ba léegi noppeeku ñu dañoo soxla ay leeral si loolu noonu. 2024 bi dama leen ngeen jël seen carte électeur képp koo xam ne jot nga sa carte électeur ñu bind si ginnaaw fi ngay voté bu dee dañ da nga a woote Géejawaay la jaral nga dagg paas dem Kaolack wootee ji fa. dama lii may def nii loolu mooy background check si anglais ngeen xam li may wax delloo ginnaaw ñu bañ a fàtte démb dama ne dafa laaj ñu fàttaliku. suñu xale yi nga xam ne réew mi dafa métti bañ leen di tëkku di leen menacer ñu tiit daw di génn réew mi ay marine di leen dàq ba gaal yi këpp si biir géej gi ñoo ñu dee Antoine Diome dem taxaw def vidéo di wane ne xale yi dañu dugg si géej gi seen gaal gee këpp ngelaw ko këpp ñu ñëw génn néew yi di ko yóbbu di di di dem di suuli dañoo soxla ay leeral si loolu noonu. dama ne dañoo soxla suñu ay gendarme diñ fii Sénégal ñoo xam ne dañoo doon défendre seen dëkk ñu rey leen muy ñaari gendarme yooyu noonu ñu ne leen. dañoo xaru ba léegi mënta leer dañoo soxla loolu leeral ak atte dañoo soxla gendarme bi nga xamante ni barki démb la génn mu jógee ko Sénégal ñëw Amérique gii mu ne Moussa faal moo ko bëgg a faat parce que bu toogoon Sénégal dañ koy def comme ni ñu def ñaari gendarme yooyu noonu dañoo soxla ay leeral si loolu noonu. dañoo soxla tamit ay leeral Moussa Fall bi mu demee Touba ak Tiwaawoon mu ne am na ñuy waaj a taal. ay bomb fii si fii si jumaa ji jumaa yi Touba moom ak ñoom ñoom Cheikh Tidiane gaajo programme booba noonu lan moo ko laroon ak lu ñu si jubluwoon woon dañoo soxla ëllëg ay leeral lan lañ bëggoon amaana bu buñ ko dénoncé wutoon ne lii lañ bëgg a def ko noonu taal nañ ay bomb jumaa yi Touba ak jumaa yi Tiwaawoon ñoom loolu lañ bëggoon dañoo soxla ay leeral si loolu moo tax ngeen war a jëli seen carte électeur dañoo bëgg sénégalais yi lan moo tax Mauritanie sénégalais bu fa dem di nappi ñu jàpp ko yóbbu ko kaso tëj ko du ngeen gis benn ministre affaires étrangères buy taxaw di lijjanti yéen mool yi ni ñu leen di tëjee Mauritanie di leen ko tëjee Guinée Bissau di leen ko tëjee fépp foo xamante ni rek Sénégal dafa frontière ak géejam kenn du leen jëli léeg-léeg sax bu ngeen deeyee ñu sul si tefes yi wala ñu sànni leen géej jën yi lekk leen yéen mool dañoo soxla ay leeral si loolu dañoo soxla ay leeral suñu géej gi ngeen jël jaay ko tubaab bi ba nga xamante ni ñun léegi yabo yi nga sénégalais daawul lekk yabo yi daawul lekk kobo léegi yaboy sax gisatuñ ko dañoo soxla ñi ngeen jaay géej gi ngeen indi ñu léral 2024 bi dañoo soxla loolu ngeen tegal ñuko ci table bi ñu xam kan ngeen jaay géej gi yan contrat ngeen si def lu ci bax mu continuer lu ci baxut ñu teg ko ci table bi atté ñuko def dañoo soxla farbo farbo ngom ñi mi jël ak alal bu muy jël diko ko tas lan moy ndeyam lan moy bayam dañoo soxla mariam Faye Sall ñi nga xamanteni ni mu ngi leen jël muy ay serigne tariakh ci biir Sénégal ñuy ñuy def ay xërem biir kërëm fofu sa mermous dañoo soxla ña nga xamante ni ñu bari ñoo xam ne tey élection bu bu ñu fi jëlee pouvoir bi danañ taxaw ñëw indi seede ki naan maa rey diw ki naan diw ma yónnee woon ki naan maa diw ma def la woon li dañoo soxla ay leeral 2024 boobu noonu. dañoo soxla 2024 1000 milliards yi nga xam ne dañ ko cotiser pour Covid 19 bi Aly Ngouille Ndiaye di duma sénégalais yi naan leen tëdd leen heure yeewu leen heure joxu leen lu leen lekk joxu leen lu ngeen nekk Trump jox na ma jox na ma ñetti jox na ma ñaari yoon 2000 euh, dollars 1000 dollars. manam 1 million nema nema nema nema dundal amal jamu nekkal sa keur bu liggey dina la fay ñun amuñu lool ñeñ ñu duma nañu te di leen heure ali nguy jaay mo jité won lool dañoo soxla ay léral si 1000 milliards yi nga xamné dañ ko cotiser won pour Sénégal rakki Mariam fay Sall wala magam di Mansour fay lekko teuf dañoo soxla ay léral si alal bobu non 2024 motax ngeen wara jël seen carte électeur ta bayyi ci fête d'hiver yi ngeen nek bayyi ci tiaxan ngeen nek ngeen xamné ay bakkan dañoo dé ay bakkan dañoo rot dañoo soxla képp koo xam ne ñoom faat nañ ko ñu àtte leen dañoo soxla Ibrahima Ismaïla Madior Fall li nga xamante ni yaa ngi ko doon yaa doon jaxase suñu justice di indi di jaxase xel yi nga doon ministre ministre de l'intérieur loolu nga doon def noon tappale ak fen ko dañoo soxla teg la si kanam baro bi 2024 nga wax ñu lan moo la ko doon defloo ñu àtte la noq la si kaso bi. pareegu ma de xam nga ba léegi waxuguma Ousmane Sonko li ngeen ko teg de li ngeen laa leen di wax. Ousmane Sonko li ngeen ko tek justice moo koy àtte dem la ngeen jëli seen carte électeur yi loolu moo koy saafara ba pare kenn ku nek jël don don sa don don sa sécurité bureau de vote waaw. dañoo soxla nak ba léegi ñëwaguma sax li ngeen tek passé parce que li ngeen tek passé ñu mo maîtriser nañ ko Pastef mu Ousmane Sonko mëna leen baal li ngeen ko tek jomay mëna leen baal li ngeen ko tek waye li ngeen tek Sénégalais ak li ngeen yoro Sénégalais ak bakkani rot mom dañ nañ ko atté mom bu neexee yàlla. yéen a bon léegi yéen a ngay def complot Sénégalais yeewu leen de li ma wax fii yëpp te am na yu dese yoo xamante ni sax man mun naa ko fàtte lépp ñu teg leen ko ngeen nekk fii ñu leen di këyitloo comme réew mi ñoom ñoo ko moom dañ koo doon réew mi kenn ëppalewu leen si. juge yi tey nga xam ne dañ leen a sant téléphone kat Ousmane Sonko bu mu dugg si liste bi ñu écarté ko loolu dañ koy leeral ëllëg. ma ne gis nga pouvoir bi bu daanoo da ngeen gis am na lu ma fàtte de garab yenn Casamance. bant ya ñuy gor di ko jël di ko génne réew mi di ko dagg di yóbbu fu nekk di ko jaay ay autorité di ko lekk biir Sénégal xaalisu garab yooyu noonu xam nga Sénégal lépp la ma koy jaay lépp lañ sàcc sama gars yi pétrole beeg gaz ba léegi tudduguma ko xanaa six mille milliards yu Aliou Sall bu ma toogoon fii yendu fi ba ngoon jot man ñun maanaam lii yëpp Ousmane Sonko lii yëpp ko woon Ousmane Sonko moo ko dugal suñu bopp loolu tax ñu topp waa ji dox si moom ngeen naan waa ji da ngeen a mel da ngeen a kii nee na ma santé santé djouf sar, faté wuñ la dé tey sama gars santé fep am problème foo laal fay metti dama ne waa Petersen wa wa défoncé wa Sandaga ña fa nekkoon di gorlu ngén ñew yëkëti lén jël place yee jaay sénégalais ay boy, samay morom boy yo xamné ko ci gis boy yore boy yore 1 million dollar ñu wecc lako ko fexé ba boy yo ñëpp fuñ toll laaj yelwaan a leen dese ñiy daw dee si géej gi ñiy daw dee si yoonu Nicaragua bi ñiy yegg si Amérique di réccul leen fi indi parce que amuñu liggéey amuñu këyit dëkk yi boo amul këyit doo liggéey loolu yëpp ngeen teg ko ndaw ñi. ki barke alxuraani kër bu la suñu àq dalut kon yàlla li mu bind dama mun nga mun nga ne mun nga ne li mu li mu li mu bind amut ndax yàlla du du seetaan loolu li ñu Macky teg yàlla dafa bind ba pare wax. lan mooy attey li nga def ndax atté fi ci aduna la bala ñu yow ma xam da sori dañu bëgg fekk atté bi fi 2024 ngeen jël sen sen sen sen sen sen kii mu né transport merci señ bi nga ñëw ci transport bi ñu né transport yow nga né da nga bëgg dëgër défar réew nga dem jël ben sa rak non Sénégal li fa am yeen est-ce que nga xalaali am Sénégal manam ministre bi ñu dénk transport docteur lay doon yoon xamul luy transport ñu ñëw jox ko transport mu dem jëndi ay bus fu ko neex fu mu mën a defee faux facture rek indi ne leen bus yaa ngi ni au lieu ñu dem si transporteur yi jël foo koo xam ne maîtriser na métier transport xam ne si transport dara ñu ne ko kaay doonal ministre bi yor wàllu transport. ngeen jël ay milliards def ko si transport jënd ay foo biis ay bus yu bon bus yi di tàkk benn par benn loolu yëpp Mansour Faye la ah. looloo am senegal loo tutu rek ma doon wax fii ba pare ba suba du ma fi du ma fi du ma mu ne Adji Sarr wax naa ko yàgg na. dossier Adji Sarr nee naa la liñ de man li may tudd nii yow sa tuddaguma mbiru Ousmane Sonko nga ñëw si Moustapha Diakhaté ak ñeneen ñu doon def ay déclaration dem leen kër diw ngeen rey diw <laughs> eh. non am nga liggéey non jomaay yow boo ñëwee lenn rek nga war a def boo ñëwee tasal justice bi jël justice bi defaraat ko àtte dossier waat yëpp nga àtte leen yow yow yow yow santuñ la nga tabaxi pon santu ñu nga def dara tabaxal ci bi rek organiser ay élection jox sénégalais yépp seen carte carte électeur ñu dem voter ji ku bëgg a bokk bokk après yow nga abal ñu dem wat ce passif gué Ousmane Sonko gagné réew mi mom mu dem doxal nga xamni du fi ñëw ñu naan Sonko day toppanteeg day li ak day fayanto ak yéeréet mu ñëw ci baykat yi nak baykat yi dem nañ jëli seen carte électeur yi est ce que xam ngeen président Ousmane Sonko lu mu bind ci livre am bi est ce que xam nga président Ousmane Sonko lan la def lan moy programme am si baykat yi est-ce que xam ngeen ko mu ne dem leen ngeen jëli ji carte électeur yi ngeen woteel ma kenn ku nekk sa suuf ngeen moom ko xam nga boo moomee sa suuf bu ëllëgee mën ngaa dem banque jël sa titre foncier suuf dem banque lebal la nga bay lu la neex ak lu la saf état jënd ko jënd ko prix bu baax Ousmane ko loolu leen wax baykat dootul torox état bi bu bëggee jaarale ay autoroute ci seen tool yi sax wala ay tali day ñëw ngeen jaay ko suuf si parce que am ngeen lu gën a neex lii. pourtant loolu moy droit mo am ci dëkk yépp dama dama leen dama gis ben ñi jaar ni ko rek ben docteur kéro dama gis ne song ma ma eh an oh vraiment vraiment ci liggéey rafet na kontaan naa ñu waxtaan mu ne man docteur la won Sénégal la nékkon waye ma ngi liggéey ci restaurant bi euh, damay raxas damay raxas ay bol ci restaurant non sama yaram dafa daw dama xalaat lu bari docteur docteur laa la wax de nga xam ne dafa war a faj mu jaar yoonu Nicaragua bi ñëw fii ma di ko jox orienté ne ko da ngay jéem a dem def anglais bi affaire yooyu noonu dugal say kayit affaire yooyu pour nga mën pour hôpital yi mën la jël. mu won ma ay photo yu bari si téléphone yoo xam ne da doon liggéey hôpital bu mag la nekkoon Sénégal sama gars yi jël leen carte yi te ngeen jéem a xàmmee kuy jomaay fay te ngeen génn si li ngeen di defetee di leen nax. السلام عليكم ورحمه الله